waawaay ba fi ñu toll nii mi ngi gën a yokk mais gënul dellu gannaaw. moom ma koy laaj dada parce que à peu près def na cursusam wax nañu ko sànq mais ma lay laaj lan moo la dugal ci politique ak soo dee postuler pour nekk ci sa gox bi nga dëkk. lan nga ci gis lu góor waroon def. te jigéen war a gën a taxawaay ba parce que jigéen moo nekk ci biir kër yi xam yi xew ci kër yi. Mhm. ma lay laaj lan moo la ci dugal ak naka la góor ñi di comporté ak yow ci ci terrain politique li ma dugal nag ci politique. mooy dama dëkk ci gox boo xam ni solidaire ñu woon ay hmm. kilifa laa dëkkal ay borom alal te daanuñu xool seeni dëkkandoo lu xew ci seeni dëkkandoo lijjantiwuñu ko ma xool ni li li li gën a tax ma dugg ci politique mooy bokk ci instance de décision yi parce que su dee da nga dëkk ci gox gox bi kenn jógul pour luy suqali gox bi ñëpp dañu croiser les bras même bu mësaan taw bu nawetee dama daan yend ci mbedd mi di fanaan ci mbedd mi sol ay bët di xuus di woo samay contact hydrocureur ba ci 2004 bi maire euh, mur de Bellevue di toj temps boobu premier euh, président Macky Sall moo nekkoon premier ministre Issa Mbaye Samb moo nekkoon ministre de l'assainissement pour wax la ni la li gën a tax ma dugg ci politique bi mooy zone de captage bi ñu indi ay problème de survie ndax dañ fa dëkk man 88 laa fa dëkk. Hmm? ci front de terre bi ñun ci ñu fa njëkk dëkk lañu bokk. Mhm. bi ñu fa dëkkee en 2004 ñu commencé morceler terrain yi. Hmm. parce que ay baraak moo fa nekkoon. Hmm. ñu ni ñooñu dañ leen di yëkkati dañuy dagg léegi ay kër bu ñu paree dagg nañ leen jox. mujj ñoo dagg dara dañ jël yëf yi jox ko ay nit ci lañ tëjee woon le maire de Grand Yoff Mamour Gueye ci temps woowu président Abdoulaye Wade bi ñu ñëwee nag maire maire mairu Bellevue xam nga bu dee dañu morcelé terrain zone de captage bu ñu koy wax de da béréb la woon boo xam ne da doon capter ndox mi du pour dëkkuwaay ay dune de moo fa nekkoon mhm. bassin bi fa nekkoon amu fa woon. Mhm. ñun bu daan traversé di dem CTO suuf si la ñuy jéggi pour wax la ni la ruissellement rek la doon am. mais bi mu demee nag ba ma gis ni problème inondation yi am na. Mhm. benn góor jugul man ci laa jóg. Mhm. di jàppale kër yi ma dëkkaloon parce que ñun ñëpp doon inondé. ma xool tamit ni lu bari nit ñi dañ toog seetaan ma ni pour pas. du ma jóg. justement pour xeexal sama gox. tey dem mbokk ci instance de décision yi ci mairie de Grand Yoff pour que lépp lu mairie bi di defal yeneen gox goxaan yi ñu nit ñoom ci suñu cër. justement loolu tax nga tollu tey ci sa ñaareelu mandat. Ah. ñu jubluwaat nag ci local yi di ñëw. Mhm. jongante gi yaay booy. waa xam nga ñëw na te loolu dafa a jigéen ñi gën a bari. Mhm. nekk ci instance de décision yi. Mhm. bokk ci ñi yilif. parce que gox jigéen ji ne ci biir këram. di fa yendu wala bu demee la plupart du temps moo fay toog. muy gën a xam soxla yi. kon léegi taxawaayu jigéen dafa war a gën a bari. ci maire yi ñu takk seen digg xam ne ñaar loxo tax tubéy ñaar loxoy takk sër. te jigéen bi nga xam ne dafa ne ci goo xam di lijjanti ndox mi làmp yi mbalit mi war ko jël mais kooku pour mu am fa poste dafa war. léegi naka ngay def ak góor ñi ndenk ci ci guerre mondiale 14 18 lay dund sama koñ. Ah xam nga lu tax. xam nga nit boo nanguwul cëru nit. nit ki du la jox sa cër. Mm-hmm. mënumaa dëkk ci koñ boobu 89 di xeex ba ay nit ñëw dëkk si mm-hmm. ba am ay post de responsabilité ci koñ boobu ñu wëlbati ko ni ñoom reconnaître ñu man sama conseillère municipal bi ma doon ak li ma xeex ci koñ bi koñ ñoom ñi nga xam ne ñoo mujjee dëkk ñoom ñoo war a euh, ni nga ko xatee diriger koñ bi guerre 98 waaye man li ma gëm laa gëm mm-hmm. ndax bu may def yàllaa tax may def Mm-hmm. te lépp lu ma def suñu koñ àqi dëkkandoo lay waslu sama àq mm-hmm. ku nekk nag mën ngaa gisee sa opinion personnelle li nit ki di politiquer waaye man sama gox zone de captage avec mais maigres moyens lu bu dee korite mm-hmm. naa wut samay ganaar su dee tabaski naa wut samay pombiteer rek samay soble soxla bu ñu am bu ma fekkee ma yor lu ma leen suturaalee dinaa leen suturaal amul nag lu ma état defal parce que depuis 2019 maa ngi ci président Macky Sall pour que <coughs> comme boobu ba léegi maa ngi ci mairie bi te li ñu bëgg amaguñu ko te état moo yor doole gi dañuy rallier état. damaa dem no même li tax ma rallier état sax c'est pas affaire doole gi mais ni comme li ngay wax da ngay nekk jigéen. di politique di jàppale ay góor ñu falu sunu faloo ñu jam la paaka wor dafa jot kon jigéen ñi euh, fal euh, ñu fal leen ñu jiitu bu ko defee xëy na ci ci seen euh, affection maternelle waaw kay xam nga yërmande ci jigéen la ëppee jigéen ma ëpp de góor góor tey ji mën nga xeexal ko ba yegg ba fi mu toog yow yaa tax mu toog fa mais moom est-ce que mu wëlbati jam la paaka di la xeex ci mairie bi comme si yow ennemi nga te tey gannaaw yàlla bu toogee yow yaa tax moom moom ma dal ak le maire de Grand Yoff ma Diop Diop. mais est ce que est ce que yéen du li ngeen daan ànd ak politiciens yi sol pii sol tisi jël sandwich jooy xaalis tàccu rek ñu leen doon gis ci beneen euh, euh, figure bi ci ginnaaw ngeen xam ne da ngeen doon gunge rek est ce que jotul ni ñuy waxee bàjjenu gox yi ngeen nekk ko ñu reconnaître leen utal leen ay euh, ñu ñëpp statut boo xam ne bàjjanu gox bi daf koy am. jigéen ñi ni ñu mënee jiite kër di ko yor kër pourquoi pas mënuñ nekk ay maire comme ni ko Soham Wardini di nekkee. waaw moom laa lay expliquer man mosuma tàccu kenn mosuma sol tissu kenn sama leadership dama ko judduwaale. nga ne ba ma dee xale ba léegi laa laa opté. Hmm. pour être un leader. li te yàlla nga ma koy defal parce que sama gëm-gëm la. lu ma topp ci ginnaaw kenn. di la ragal sa gànnaaw man leader laa comme tout le monde. Oh. te muy dëgg te damaa présenté woon nekkoon candidat maire Grand Yoff. Hmm. waaye comme président moo doon tànn. Hmm. te comme moom mooy suñu njiit dañ ko bàyyi mu tànn ki mu neex ki ko neex. mais fenn rek la defe erreur. mooy fan. bi muy tànn dafa waroon woo. ñi nekk. ci gox bi ci euh, leader yi nekk ànd ak moom. mu wootu ñu pale ñu waxtaan ak moom bu ñu waxtaanoo Mm. dinañ ko ni kii moo baax pour Grand Yoff boo ko jiitalee ñu dem. diisoo boobu ñàkk diisoo boobu dañ koy nemmeeku ci langum politique yi. Mm-hmm. mu ci yéen biir Benno euh, Bokk Yaakaar wala APR sax. Mm-hmm. da ngay dégg ni ñu naan bu fekkoon dañu am diisoo bu sore ak président xëy na yenn erreur yi ñu koy joxoñ baaramu tuuma duñ fa yegg. Mm-hmm. tey jii nii ñu jubluwaat ci local yi mu tànnaat ay nit yoo xamante ni xëy na naam daf leen bëgg positionné waaye comme askan gi moo yor baat googule moom mooy dem voté ku ci mel ni Cheikh Bakhoum je pense que dafay nekk. boo ko tojul fenn. Ah, sama beau frère waaye na nekk sa mag. <laughs> est-ce que yaa may dégg. na bokk ndey ak <laughs> tey moom xam nga nit ñi dañu xamul lan mooy politique. dëgg la am na ñoo xam ne politique yabaate la ñuy def. Ah. am ñoo xam ne politique gu jëndaate la ñuy def. la dëgg la Cheikh Bakhoum depuis 2014 la nekk ADIA. waaw. am budget ñaata milliards. deux cent milliards presque. lan la investir Grand Yoff lan la def Grand Yoff bàyyi à six mois des élections nga yor say cent mille francs di dugg ci nit ñi information yi ñuy yëgal ci président du information yu baax. parce que palais daa am ay marraines ak ay parrains. leader yi ne ci suuf dañoo am man awma marraine awma parrain sama xeexu bopp laay xeex ak ndimbalu sunu borom. très bien très bien maman Ndak faw ñu delloo la lenge yi <laughs> comme yaay booy nee na mën a nekk sama. cher Bakhoum euh, désolé euh, mais bon j'ai pas pu faire mieux. waaw mais xam nga moom moom moom moom elle a du mérite. <laughs> parce que elle a osé. te gis nga nit ku nekk li buggaan di problème mooy gëm sa bopp dafa am solo gis nga nit dafa am foo xam ne yaa fi yóbbu sa bopp ñu pouse la nga dem mais kenn du la fekk nga tëdd ñu naan la jógal taxaw te li mu def am na solo te loolu tey femme action def ci am mbégte parce que dañuy génne jigéen ñi nga xamante ni c'est des femmes de valeur femme de valeur nag du am am du am am femme de valeur mi ngi ci sa xol mi ngi ci sa yéene nekk ci gox juddoo fa wala nga ñëw yàgg fa xool ni sama gox bi kat war na am euh, canalisation sama gox war nañu am làmp sama gox war nañu am nangam nangam ko te dara amu fa ngay xeex ngir taxaw loolu jar na jàppale dama xamul nag yow sa waa gox naka la ñu ay defee ak yow ci li nga dëgmal naka lañ ko gisee sa waa gox waaw moom laa wax ma ne ko gox bi am na ñu am reconnaissance mhm. parce que yàlla daf ma defar sutura bi ñu ñëwee euh, ak xalifa ma xalifa Sall làmp amul woon suñu koñ te boobu man ak directeuru Senelec Pape Pape Dieng ñoo dëkkoon benn ko ñetti kër ñu séparé ma gisoon ni buntu këram rek la defoon làmp koñ ba lëndam kurus man ma jóg dem seeti xalifa ni ko yaay maire de Dakar xanaa zone de captage bokk ci Grand Yoff bi ma demee seeti ko ci lañ def làmp yi jour boobu maa ngi ñoom septeur ba 18 heures ñu def làmp yi côté zone de captage bi bi mu amulee làmp dañu leen defal extension tegal leen ay poto branché leen ay làmp kon loolu def naa ko sama koñ bu ñu wëlbati inondation bu jot photo yaa ngi fi archive yaa ngi fi. te dama daan xuus ci taw bi am na tabaski boo xam ne kër yi danoo fees dell dama fanaanee manq ba 7 heures du matin pour ñu mën a teg seen xar yi pour tër leen rindi sama waa koñ xam nañ ma bu baax xam nañ ni tey su ma amoon leen moyens nécessaires. Hmm. du ñu namm dara. waaye nag tepp tepp a gën yu ret waaye nag loolu dañu koy dégg ci homme et femme politique yépp maman. Mhm. su ma amoon le moyens moyen yi bu dikkee tamit du c'est pas pour faire justement allusion à votre personne. Oui, mais c'est en général après dañuy tas yaakaaru askan wi. mosuma tas yaakaar ñii dañuy ñëw comme ni nga ko waxee indi t-shirt cent mille francs ñu tasaare ko ci biir mbo mbootaay gi ñi yóbbu ko ndaxte nit ñi dañoo xiif jamono ji euh, Louisa Diandi c'est un corps de métier la politique est devenue un vrai une vraie filière. business il faudrait aller apprendre pour mën a jongante te jàkkaarloo ak ñoom ndax dañoo mën a wax macha allah neex laa meññ ni man ak ah te ku ñu jàkkaar loolu mën la nag ca kàddu ah bu ñu waxee rek nga signé waaye je pense que c'est un exemple boo xamante ne euh, woon nañ ko ñu mel ni dañ leen war di fësal parce que day euh, day dindi euh, li nga xamante ne mythe bi amoon ci politique rassemblement jigéen ñi rassemblement mhm. bu ñu waxee jigéen politique rek égal t-shirt mobilisation indi nit ñi tàcc mu jeex alors que en fait dañuy réduire jigéen si Euh, pouvoir de de de de de décision am. Mhm. dire que moom fu mu war a fu mu war a tey jii taxawee mm-hmm. pour lijjanti làmp bi pour lijjanti euh, ñi nga xamante ne jàngiwuñu. wala ak mm-hmm. leen des des des des questions qui qui sont à la commune. Mm-hmm. Euh, tey jii bu ñu euh, de ñi nga xamante na ñuy dem politique juste pour mobiliser. dañuy yàq li nga xamante ne tey ji jigéen war na ko mën a liggéey ci dañuy xeeb jigéen yi daal ci dañ lay réduire en fait dañ lay réduire sur que tu dois que gérer des questions liées aux femmes alors qu'il y plus leader bi muy wax muy incarné wane na ko day xool c'est-à-dire que politique c'est simple lu basi loo xamante ni communauté ko da ko communauté bi da ko yellool nit ki jug xeex ko parce que moom da cee war da cee am wàll. Mhm. ki mu dëkkal aussi am ci wàll. donc du euh, ñu mel nii dañoo dañ leen war a di fësal. que tamit gox yi li c'est-à-dire que l'histoire des collectivités locales l'histoire des élections municipales c'est une histoire de communauté mm-hmm. c'est une histoire de quartier ça n'a rien à voir ak je suis pas d'accord que président dem di jël ay tête de liste ñoo teg ko alors que y a des réalités yoo xamante ne dañoo nekk ci quartier nekk ci ci commune bi. te mhm. te comme li wax affaire nawetaan la daal. Mhm. dañoo war en fait jigéen bu ci am projet ñëw taxaw ne dafa bëgg a nekk maire ñu jogante ñu indi la ñu voté la dans même dans la lutte de la chaise présidentielle on a cette euh, cette euh, euh, mooy xeeb boobu noonu ngay wax ci jigéen ñi xëy na dañuy foog ni suñu capacité nday la ñuy bëgg a gérer mbir mi kon nday nag ci kër gi rek la yem. peut-être c'est c'est dû à ça mais pour revenir aux élections justement locales euh, dañuy gis ne ni yi am na ay liste yoo xamante ni dañu koy rejeté ku ci mel ni que euh, njiitu gëm sa bopp moom gox bu mu dem rek listam ñu rejeté ko pourquoi c'est dû à quoi ah, on entend aussi parler des préfets et des sous-préfets yu ñuy joxoñ baaraam tuuma gis nga chéri naa leen wax tey dara waaw xam nga politique nit ñi dañu mën di sosalaate ah. ñaari mbir dinaa leen ko wax tey di nga ni da koy jàng dafa am ni ñu agencé list te dafa am nombre majoritaire am nombre proportionnel am ay suppléant soo juumee hmm. bu sa liste matul dañ lay rejeté man par exemple sous préfecture parcelle hmm. man maa nekkoon huitième position ci arrondissement bi yëpp te pourtant man jigéen laa maay mandataire suñu coalition sama liste déposé naa ko amul benn problème am na ñoo xam ne ay leader lañu yoo xam ne ñi ngi ci biir Grand Yoff ba nu yeggee dàq nañ leen trois fois pour ñu bañ matal seen i liste li nga bokk APR a tax non ñooñu ñooñu APR lañu li ma lay wax ñooñu ñu doon rejeté seen i liste matul APR lañu bokk man 3 heures 30 laa fa génn am na ñoo xam ne 11 heures lañu génn sous préfecture ndax liste yu matul te ñooñu ay leader bennoo lañ xam nga li ma wax mhm. kon sous préfet amul lu muy def parti pris parce que waa Sénat ñi ngi toog yow mi nga xam ni yaay mandataire bi ak sa adjoint yaa ngi toog foofu amul lu nu mën a def ba pare même les élections li ñuy wax naan ay sàcc hmm. man gëwuma ko xam nga dama yàgg a nekk mandataire hmm. du voté wuñ ci ordinateur ay bulletin la suñu paree représentant parti yëpp dañuy toog hmm, ñu dépouiller wàññi seeni kanam bu ñu paree signé PV te PV yi écrit feuille lañ koy dagg. mais pour revenir à Femme Action encore une fois bu fekkee dañ may ñëw jox ma t-shirt ak sër fekk ma ma xiif ma rafle boole ma ca fukki junni yoo xamante ni man su ma toogee weer bi yëpp daf may matal sama weer xëy na peut-être sénégalais foofu la ñuy wax naan la dañuy orienter indirectement le le le droit de vote des citoyens maman te foofu la Femme Action di ñëwee parce que peut-être que suñu jëlee jigéen yi jiital leen xëy na naam jigéen yi am nañ scrupule am na ku ko doon wax léegi eh, ci eh, commentaire yi ba ko dinañ ko jomma def lu jigéen jomma def góor jomma ko def. mais xam nga Asma Khadija am na ñoo xam ne mag lu mu nangu te ko ko dagat la. Mhm. ça dépend fi nga teg sa bopp. su fekkente ni sa culture. Mhm. politique may na la ko. sa sa sa expérience may na la nga taxaw nga am bagage bu mën a défendre sa cause mais war nga mën a taxaw def sa candidature. bien sûr que nag bu fekkente ne nga opté du t ak tàccu ak cinquante mille francs wala vingt cinq mille mais foofu nga yem. am na ay femmes yoo xam ni elles bien sûr nekk ay maire même suñu leen su fekkente ni dañ leen di dindi ci seen euh, position ni leen toog leen diw dem parce que loolu dañ leen koy imposer sa parti su la nee toogal diw dem mais loolu ce n'est pas normal war nañu bàyyi jigéen bu nekkee ci gox ak góor ñu postulé ñoom ñaar ku mën a yóbbu. parce que kon natul dooleem doo xam fu mu toll. mais c'est est ce que am na vie de famille pour revenir a Femme Action. ah. ah. déedéet. ah bon mi nen nay tuuti. non non non. man mi dama lay da ngay def sacrifice fii pour mën a doxal fee man dama am ay njaboot mais su ñu nekkee ci campagne su ma xëyee suba bu ñuy jàngi ñu gis ma suñ ma gisaatee guddi la yenn saa yi sax damay fekk ñu nelaw. Hmm? ci période. est-ce que dégg nga wax ji. xam nga yaa ngi wax ni jox la tissu. xam nga ñii ñuy jox tissu fukki junni ñu nangu ko. wala ni tër dagan na yow nan ngay dëkkee sa gox. ngay ànd ak nit mu jël maigre moyen créer la calebasse ngeen di natt te du ministre du DG du koo xam ne état jël na ko comme sama genre sama koñ dama leen defal ay calebasse avec mais maigres moyens ndax leader laa su ma damay xañ samay njaboot di leen jox pour que ñoom it ñu xam ne na dama nawloo ak ñoom man ñi may àndal suñu koñ samay nawle lañ duñ samay surga jàppewuma leen tàccu ak sol t-shirt wala tissu ñoo may seetaan dama ànd ak ñoom ànd nawle ndax ànd gu yàgg la depuis ñu dëkk foofu problème bu ñu mës a am ak ku mën a doon maa ko dayan xeex mm-hmm. léegi nag li ñuy li ñuy tëjee parce que xam nga rubrique bi kenn ku nekk ak sa parti bi nga am. Mm. ganu ganu sax dañ la may faveur parce que <laughs> comme jigéen la ñëw taxaw taxaw politique. Mm-hmm. ñu may la faveur mais ñu ngi lay ñaanal bon vent. Mm-hmm. di la ñaanal yàlla may la ndam. tey la mm-hmm. l'avenir soo ko jotee lan nga xalaat def ko. ci sa ko soo ko jotee tey xam nga man sama coalition dama ànd ak ku ñuy wax Mora Cissé ak yeneen parti politique ak ay mouvement ak ay femmes de développement ak ay jeunes ASC yépp la àndal projet bi ñu yor pour commune de Grand Yoff pour defar ko la. changer kanamu Grand Yoff ndax maa ngi si sama def naa deux mandats xam naa faay yi mu jóge ndax Grand Yoff ci recette rek li mu am mënoon naa defar Grand Yoff mais Grand Yoff defaruwul kenn xamul fu recette yi problème yu bëri mi ngi am Grand Yoff même ci chômage bi mhm. mais ñañu fa employé bëriwuñu. très bien kon ñun. teg nañu projet yoo xam ni pour avancer le Grand Yoff suqali Grand Yoff changer le visage de Grand Yoff jàppale femmes yi jàppale jeunes yi jàppale ñu nit ñu gox goxaan ñu def rénover leen defar lépp muy euh, même tali yeeg tout pavage beeg defar Grand Yoff ba mu mel ni comme Dakar. léegi nag. Euh,